waaw man Touba laa jëm de dañoo jël paas bi yokk ko bàyyi ay 4000 ay 3000 la ñuy wax bilaay loolu moo tax ñun man 1500 laa doon demee Touba waaye ren gars yokku paas bi di koy def ay 4000 ay 3000 loolu moo tax mënu maa dem ni waaw maa ngi leen di ñaan daal ñu wàññi paas bi daal da ko xiwalu Sëriñ Touba daal waaw sëriñ bi demal ñu daal ñu mun a dem waaw ñëpp bëgg nañoo dem daal fajaba ba ba léegi maa ngi fii daal mënu maa dem Touba waaw nga daal nga jógee ba gannaaw kër ma jibel pour bëgg a dem Touba dugg sareet fay wàcc kër ma jibel dugg oto fay wàcc Kaolack ñëw ba Kaolack nag ñu ne fi sekk nag ak ñu njaboot nii ñu ngi nii toog fi mu ne ko amul seemin ñu ne doo dem te xam nga ne béykatam nag ne mu dara dugub ja ñor na gerte ya ñor na mënu ñoo bojju deqee guñ loolu moo ñu fi ba waaye sëñ Touba jaral nañu 10 000 sax waaye dañ koo yorut nag ceen nga lii la ay xale ñu àndal kii ñii samay sët lay samay doom lañ fi mu ne jënd naa ndox mënatumaa jënd ndox jënd naa lekk ba mënatumaa jënd lek ba yalla yaakar na fi lañ xala yëndu tay wala bu méttee ba métti rek mu jar ñu takkayu di dox rek ba yegg yaramuñ ñu nag safoor yi mom yaramuñ ñu ndaxte baykatam nag da nga ne ko 5000 6000 fi ba Touba war nga xamne dang koy wax rek way mënuñ ko way nak danañ jëm nak ba télé rek tok ndax jéem tale gàcce tekku ci jaral nañu dox jaral nañu daw jaral nañu du waxu ñi ngi ni man ma ngi yor bagage bo xamne ne bi sax añ laa ko digon sama dom ji ne Touba di fa sëy ma ne ko ngi ni di daw di ñew waaye xam nga lool rate na ku ñu dimbalé nak ñu jël ci pass señ Tuubaa mom bu hoté dañuy dem rek dem rek dem rek dem rek ah safoor yi dem mom. wax waaw mom da suñ ko defon mu baax gënal nañu dé ndax suñ ko défé ñu dem suñ ko deful ñu dem kon nak nañ ko def te dimbalé ñu te yalla tax am du dëgg ah waaye nañ ñu dimbale waay waaye safoor yi nañ ñu dimbale waay cinq mille ah, ñun liñ bëgg wax moy gis nañ ni randal magal gi gaay wax dëgg fi yalla paas yi dañ ko exagéré ba ëpp ndax fii ak Touba paas yi bu dee bus 1500 la te instant bi gis nañ ni bus yi depuis démb ba léegi gars yi 4000 la ñuy la ñuy yebee ñenn ñi 4000 ñenn ñi 5000. Euh, minicar yi nga xam ne ay 1250 maximum 1500 instant bi 3000 la ñuy yebee depuis ce matin ba léegi da nga fi gis ay kilifa ay maire ah, ñoo xam depuis ce matin dañoo fajaru ñëw ba léegi ñu ngi fi mënuñu am oto nga xam ne am na ñoo xam ne bi ñu dugg si oto yi tax. par obligation lañ ci duggee parce que yàgg nañ fi sonn nañ xamatuñ ñuy def dañuy obligé ah paas bi nga xam ne moom la ñu waroon a passé aller retour ñu def benn aller nga ne kon ñoom seen passé retour fa lañ ko yaakaaree kon màggal gi war nañ ci dawal yërmande di jàppale ñi nga xam ne ñooy dem Touba du ko woyofal ba mu woyof état bi war na saa gi ñëwatee muy wax chauffeur yi li nga xam ne loolu lañ war di yabee clients yi quoi parce que sonn nañ te ren dëkk bi ni mel ñëpp xam nañ ko dëkk bi nit ñi liggéeyuñ xaalis amul te ci ñu waa corona bi te suñu bëgg ak suñu yaakaar ak suñu pas-pas rek moo moo tax ñu ñëw taxaw ñu du ñu dox sax dañuy dox dem màggal yi dëgg la nag dem Touba jar na lu ne bu doon 20 000 am waaw jaral nañu ko mais jamono ji fu mu toll te ñëpp yemuñ am na ñoo xam ne am nañ luñ passé mais am na ñoo xam ne it amuñ amuñ ko quoi ñëpp bokkuñ parce que da nga gis famille voilà da nga gis famille boo xam ne ñoom ñëpp dañuy taxaw war a dem màggal yi kenn ku ci nekk nga war ko paasal doo ko paasalee 4000 francs wala 5000 francs loolu dafa bari te diggante feeg Touba serut kon war nañ di ko yombal ah ba gën a yomb ñu ngi ñaan sëñ Babacar Mbacke mu Kabaro moom mi nga xam ne moo suñu yaakaar tey ak ëllëg di suñu xarit di suñu lépp nag fii nii Kaolack nga xam ne ñëpp xam nañ ko depuis ce matin sax ñu ngi ñu ngi ko doon woo di ko wax mbir mi ni mu demee mu gën ñu see jàppale ndax penc penc ma fii ñoom war nañu am ngor parce que du ñëw ba penc ma fii dafi yabee war nañu war a mën a euh, wàññi sax paas ba mu euh, wàññeeku waaw ah, loolu daal moo nekkoon suñu mbëbëg nga xam ne bëggoon nañ ko wax